de ce lundi 28 décembre 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1194 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,97%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 45 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 5 à Dakar Plateau et à Durbel, 4 à Touba, 3 aux Almadies, à Fatick Liberté 6 et Richard Toll 3 2 à Dara Mbacké Derklé Guédiawaye Kaolack Khombol Linguère Mbour Ouakam Ouest Foire Ourossogui Parcelles Assainies Rufisque Saint-Louis et Amitié 1. Amitié 2. Bob. Cambérène. Castor. Dagana. Dieuppeul. Fass. Goudiri. Grand Yoff. Fann Bel-Air. Mariste. Ngor. Podor. Ranérou. Sud Foire. Tivaouane et Yoff.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 fekk xamuñu fi ko jëlee wala ki leen ko waral am nañ ci ju juróom ci Dakar Plateau ak Diourbel ñeent ci Touba ñett ci Almadi Fatick Liberté 6 ak Richard Toll ñaar ci Daara Derklé Géejawaay Kaolack Xombol Linguère Mbour Ouakam Ouest Foire Ourossogui Parcelles Assainies Rufisque Saint-Louis ak Thiès am nañ ci benn ci amitié 1 amitié 2 bopp Cambérène Castor da Jëppal Fass Goudiri Grand Yoff Hann bel Mariste Mermoz Ngor Podor Ranérou Sud Foire Tivaouane Peulh Yëmbal ak Yoff juróom-ñeent fukk ak juróom ci malade ñu entré woon wéer nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bu su démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom-ñett ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñaar ak fanweer ak benn wér nañ si ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak ñett téeméer ak juróom-benn si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal ñu génn àdduna yàlla xar leen àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñu nekk ci loxo docteur yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm